yàgg nañ fi évoqué lu jëm ci plateau médical yàgg na fi ay nit dem ci hôpital boo amul xaalis duñ la faj euh, boo demee sax lu jëm ci wàllum lali dans les hôpitaux également ça pose nos problèmes donc kooku tey pour man lu jëm ci question politico politicienne daf ci war génn nekk également comme ni ko yenn ci ay ministère defee parce que tey quoi qu'il en soit Mabouba soo ko tuddee ñoo xam ne kat kii wàllum mbay bi mu ngi ci def wàllum jéegoom. Mm-hmm. lu jëm également ci wàllum enseignement supérieur loo ko bañ nga xam ne kii. mu ngi su le terrain et mu ngi liggéey sur l' essentiel donc ñoom je pense que loolu lañ leen xaare et que nguur gi pour man yaakaar naa bu ñu xalaatee ni ñu leen fale ak ñi ci ñàkk seen bakkan ak sacrifice bu askan wi def également am na yenn déclaration yi warta nekk seen yi euh, li nga xam ne moo di seen taxawaay et maintenant moi je le comprends parce que récemment euh, ku ne Alioune génn na ne état euh, état pastefien et bi mu ko waxee qu'est-ce qui s'est passé. Mm-hmm. ay nit dañu taxaw di ko attaqué naan pourquoi mu wax éventuellement. mais je pense que les propos là dugg leen. ngeen jéem a tuddee toog na fi temps yi ñu wax ci appel à candidature lan la ci wax te pourtant ñoo fi toogoon jaay sax gëmul li mu gëm mooy képp koo xam ne dafa bokk ci Pastef nañ la jox poste de responsabilité donc maintenant nag je pense que état bi. dafa commencé di ubbi ay front yoo xam ne soo matul dina ko indil jafe-jafe. Mm-hmm. le ministre également jël ay kàddu yoo xam ne yëkkati na ko par la suite démb laa ko dégg à 20h ci RFM mu ne waaye ay kàddu lañ koy et yëkkati sa wax aussi mënoo wax a wax ba kàddu googu nga defar ko mu méngoo ak li am donc pour man daal j'exhorte à ce que ce gouvernement là ñu gën a wu ci par rapport ak jafe-jafe askan bi et que dafa am projet bu ñu jaay askanu Sénégal woote rupture warum changement rupture boog changement boo ko wootee aussi foog ngay teg ay jalons. mais à cinq mois ñu gis que ne dañu ubbi front yu bëree bëri te mbirum assemblée mu ngi fii xamuñu le premier ministre dina dem à l' assemblée wala dem. Mhm. Euh, Cheikh Omar Diagne ay kàddoom mu ngi fii ñiy def ay manifestation fii ñiy wax fee ñiy wax fee pareeguñu le également ñu koy xaar à ce tey moom. mu def ses preuves ci par rapport li ko fal muy toog naan bu ñu ma indilee ay CV damay xool est bokk na Pastef wala bokkul Pastef donc réew mi ñun ñoo ko bokk fii amul ku fal Pastef ak ku falul Pastef nous sommes 18 millions de Sénégalais. nous sommes égales dignité donc du coup il faudrait am ñu bàyyi yenn déclaration et nguur gi dafa mel ni que li nga xam ne moo la réalité justement du pouvoir bi nga commencé leen rattraper et je ne moom mu commencé di couper ay têtes parce que si ça mhm. continue comme ça aussi danañ def ko lu ñu comprendre kan mooy def li wala kan mooy wax li wala kan mooy def li je pense qu'on ouvre des fronts yoo xam ne ça n'a aucune importance il faudrait qu'on s'en mêle justement jafe-jafe askan wi. Mhm. démb je pense que on a vu ce qui s'en passe. Ouais. est-ce que gis nga benn ministre dem teg ay tànkam ci par rapport ak jéeg ji te pourtant bi fi président euh, Macky Sall nekkee ay ndaw di dee fi lañ nekkoon ay wàllu incompréhension donc il faudrait quand même ñu xam. l' essentiel xam li nga xam ne moo di priorité ñu nekk ci et que ces ministres là ñu dem vers l' di liggéey li nga xam ne kat moo di l' attente des Sénégalais que non pas peut être ñu nekk ci ay répondants ay politico politiciens parce que politique politicienne moom moo yàq Sénégal et loolu dafa bokkoon ci li nga xam ne moo di le système qu'on était tenté justement de moo tax daal propos yi nga xam ne yëkkati na ko du loolu nga xam ne moom la ñuy xaar et a wax lan la fi def est-ce que tey wàllum garab yi wàññeeku na ci bërëbu fajeekaay est-ce que tey ñu ngi en phase justement di tabax ay hôpitaux yoo xam ne askanu Sénégal bu ñu feebaree wala bu leen dara jotee dinañ fa mën a dem liggéey mais defuloo ko nekk ci ay tactique ay politiciens politiciens donc il faut rek ces gens là ñu arrêté ñu xam ne kat dafa am lu jaay Sénégal yi et Sénégal yi aussi dofuñu tiituñu ñu ngi xam ce qui se passe gis nga bu ñu demee fii un an deux justement ci lu jëm ci ay questions politiques parce que xam nga tey bu ñu falee gouvernement bi ñëpp ñoo reconnaître ne que rupture am na changement am na. Mhm. parce que à l'époque li ñu daan fi gis mooy da daan gagné jël sa ay ñooy teg leen ci poste yoo xam ne mënuñoo ko. Mhm. mais bu ñu gis ñoo xam ne teg nañ leen ci poste yoo xam ne mën nañ. tey ku mel ne ministre de la justice kenn du ne kii fi ñu ko teg mënul. Mhm. le ministre de également fi ñu ko teg kenn du mais également d' autres gens mais bu ñu la tegee ci benn poste bu stratégique. Sénégalais di xaar changement. tey yaa ngi dégg ne dans certaines euh, fi nga xam ne moo di bërëbu fajokaay pour sax li nga xam ne moo di dialyse de def c'est tout à fait compliqué. mais moom li ñu koy xaar mooy mu loolu non pas ay déclaration yoo xam ne ça peut mal par rapport ak ñi nga xam ñoo ne ci nguur gi ak. par mm-hmm. rapport ak les Sénégalais qui ne li li xew nii c' Euh, rupture dañu jaay également changement ak yeneen yeneen on voit des gens yoo xam ne dañuy def le contre-pied et pour man dama jàpp ne il faudrait quand même defaraat. ñoom ah, que doo yemale njongul ci aar yi rek ah, mel ni yow da gis gouvernement bi ministre bi di def nii. xam nga yow sa raxas day xam nga xam nga. non non si si

Euh, que ça soit saa waxee ni waxee ni man l'essentiel li ma ci gis mooy. Mhm. li ñu digoon Sénégalais ci wàllu rupture ak gis dafa mel ni que yàlla ak yàlla il faudrait la raison. waaw te je pense que am na ne que ñu jël ay ma joxe tànn. directeur la <laughs> directeur ci gouvernement bi nga ko si. Mm. ci directeur yu fal kenn ku nekk sa domaine. kenn nit jóg ci wax loo xam ne aw toj penc la ñu di ko jàngat. maanu gi nga. mais wax ji daa commencé non non non da waaye dama ne wax ji fan la bare. ah déedéet yaa ngi tudd Ngagne Demba Touré. waaw yaa ngi tudd le ministre. waaw ah te pourtant y' a d' autres déclarations également. kan ak kan ah mais bëri na fi saa waaw non xam nga man ku ci doon xam nga lu généraliser day tax nit ñi. non généraliser wu non non non da ngaa généraliser. day tax ñi nga xam ne ñoo nekk di def effort. gis nga benn gouvernement boo xam ne vingt cinq personnes lañ. waaw mais buy wax ces gens est-ce que nekkul ñi nga xamante ne ni peut-être ñu ngi def ay dérapages. moo tax ñuy muy wax. dérapage dafa bëri. waa ji. bu mm. sikk la dérapage dafa bëri. waaw ah. waaye dérapage fan la bare yow sant la yow loolu c'est très normal nag gis nga man exigence exigence bi askan wi exigence ak ñu genre tappalekat yi. Mm. damay sant xam nga lu tax. Mm. parce que lu ko jar amu fi. bu ñuy kii ci détails yi ak yi donte ne lii man li waa ji wax ñu dama ko def lu garaaw mooy askanu Sénégal teg nañ seen bët rien ne avant. parce que changement systémique maanaam sangement suy am. askan wi ci boppam ñooy conscient bañ a nangooti yenn yi. Mhm. ci jamonoy Macky Sall bu luy amoon mën na laa sax bañ a yëngal parce que lu bon daf cee bari woon. Mhm. dëgg la nag parce que. fagaru loolu laa d'accord moo tax ma ne la. ñun li ñu teg baax na parce que li ñu jaay askan wi jënd nañ ko. te bu ñuy naree juum ñu taxaw ne nanguwuñu. xam nga coono bu ngay rappelé li fi nekkoon mooy dañ lay fay directeur nga dem jël sa waat dëkk yëpp indi leen. li ngay wax li ngay wax li ngay wax xoolal ñoom ba koy justifier xam nga lu tax. voilà ci loolu sax ci ñoom bëgg leen a war ah, mais fii eh, moom laay wax moom laay wax moom waa passé moom laay wax parce moom laa rek xam nga nit ñi ku seetuwul non déglu ma xam nga ñoo ñëpp nit teyal rek bàmbal sa xol bii xoolal teg café gi de dama ci teg café gi baax léegi nga taay ma waa léegi may ma ma wax ko man tamit voilà non problème bi mooy fi ñor dafa am ñu ngi koy jàngate lu tax waa ji yegg fii di wax lii pour rassurer ay militants yu muy jàpp ak yooyu gis nga xam wax naa ko fii nee naa bi ñu dindee kimil la ministre bu nekk war a xam ne xaw ma ñeneen ñi de ak yooyu de mais ministre yi. dañu war a xam ne seeni résultat moo leen ba foofu parce que dindi nañ kimin xam nga mënatoo nekk maire. kon li ngay politiquer ak yooyu yow te yow ñi la fal fal nañ koo xam ne yow première fois ñu joxanteeg moom loxo amuñu problème mu transiment bañ nañ ba ne kuy transimer toogal fa nga nekk ku ñëw ci sa part bi baye boobu nga xam ne da ngay jëndi carte dem nekk ca base mais du du ku ñuy taxaw fii naan la nangam. gis nga bu ñu ko xasee wax da nga war a xam ne sa seize boobu gis nga résultat bi ngay def ci santé moo la fa baax léegi nag mu amaat beneen jàngat bu nit ñi war a jàngat. Hmm. est-ce que xam nga benn atu la sax ci Pastef ci benn côté boo koy jàngatee mooy defuñu par parloo ba militant yi kenn ku ci nekk nañ daan jël di caser militant da nga daan gis comme tey bu doon tey tey la li ñuy 700 personnes yi ñu dàqe poor da ngay daal di gisaat ñu indi 1000 personnes yu Pastef wuutal leen fa. premier ministre bi mu demee building administratif waxam ji keroog dafa dàqonteeg lii nee na yéen ma fi fekk yëpp à part poste yi nga xam ne dañ ma jege mooy yi nga xam ne poste de confiance wala nangam. Mhm. amul kenn ku ma fi dindi te fas yéene te bu ngeen yeggee ci jamono gis ne sax damaa doxal dénoncé leen ma mhm. maandu tamit nga xam ne yow yaa ngi dammat li waa ji def ma ànd ko yow di ko dammat cuun ànd ak yow di ko di ko di ko di ko dammat mais maandu googu jiital ko ci say wax li nga xam ne gouvernement bi yegg bu nga xam ne loolu même boo koy jàngat parce que bu fekkee ngay xool yëfu bañkat wala man saawal fu may xool yëfu bëgg rek du ma wax dëgg gi parce que damaa bëgg mais yow tamit booy wax ne naa ne nangam naa foog ma kii leen ak yow parce que même li la dal xaw na dal société civile bari parce que dañu yàkkamti wax ñu teel a wan ne faale wuñu ñii ñoom ñee la ñu yemale nangam nangam gis nga gouvernement da nga koy gunge. seetaan bu baaxee nga noppi bu jàddee yoon nga noppi parce que li waa ji def nii. Ah, da xam ne ay militants yi da xam ne ay militants non non waaw foofu laa lay wax déedéet non non mais même ku la ko wax noonu bëgguñ ko. parce que yaa ngi ni di ma ko non xam nga bëgguñ état de grâce mooy saa wolof nekk militant parce que taxaw carrément ministre bi nekk fii ma koy taxaw di ko wax dëgg yow li ngay wax dafa dàqonteeg li ma wax mais tamit li mu wax da xalaat ne li ko traduire. Mhm. mooy ku ci nekk militant yi nga nekkal ñu ngi dal sa kaw lu tax jëlooñu parce que dañoo gisoon ñoo xam ne ku ma a nekk ministre fal sa waa nga gis ci wax boobu mu wax leen ne su nit taxawee kon ñoom lay justifié wu ci moom leneen mu am muy militant yi seen biir mooy comme li daloon Waly Diouf Bodian boole ko ci mooy bi muy taxaw di wax ba naan ay opposant milliardaire xam nga wax jooju waxu ko euh, publiquement mi mhm. gars yi ñoo bëgg jege naa waa ji am naa moom photo vidéo naa audio naa pour dégg li muy wax pour ñoom ñu dugal ko seen groupe mu fiite te bi mu koy wax pour pour pour loolu la maanaam pour ras loolu nag la gars yi war a bàyyi yow bu ñu la faree fonk moom. Hmm. mi nga xam ne tey mooy président parti bi langage de vérité la yoo xam ñoom yow gis nga dafa am doxin wu Sonko dox ba yegg si fii amu ko ci jaaxaan amu ko ci tappale yow la même chose nga war a roy yow yeneen parti politique yi sax dañoo am pour roy Sonko nga xam ne seen xaalis dootul dem ci jeex sénégalais yi ñoom ñooy financé parti bi ñoom ñooy def defi activité langage boobu ngay jox sénégalais xam ne dama leen di liggéeyal xam ne liggéey ci gouvernement sacerdotal mais boo bëggee say militant bi nga mm. taxaw ñoom di yebbi ko. ko ciy def léegi nga wax toj penc. d'accord ñu bàyyi tuun mu ngi ko doon wax léegi tout à l'heure mu tekki kàddu yi bu fekkee ne moom mi ngi wax ne waaye parce que peut-être li mu ko wax. nga hmm? <laughs> ne non wax ak man. ah déet man tey dafay tekki kàddu ministre yi parce que bu fekkee ne mu ngi bëgg wax ne. littéralement que laa koy tekki littéralement ni ni ni ma ko waxee et tout dafa dégg. yow comme ñu boo waxee dara xam na kii nga. yaa ngi koy dégg est-ce